rul waa làmb dafa hmm. mel ne xaasa fa dugg dëgg la moo tax làmb li mu war a effet du ko effet dëgg la nañ bàyyi joob yooyu joob yooyu baaxul si suñu euh, hmm. que ñun ñoo war a defar làmb muy Zarko muy keneen parce que ki mu jël mérito na ko trop état hmm. dañuy bëree mais pour ëllëg keneen man see gis parce que tey jii bu ko neexee ne du dem catégorie googu mën a complété gars yi ñoom Sa ñoom ah pour lan mënut a jëliwaat ay revanche am ay Siteu Siteu tey jii fii mu paree nii moom moom Zarko bu newoon Siteu waat ak Zarko lu dàq loolu daa am bi laa dëgg la ah? bilaay dëgg la Siteu guddi boo ko fëggoon na ko avance Zarko. Hmm. pour mu mayaat ko revanche. Hmm. combat daax mais xam naa ñoom ñaar moom dootuñu bëri parce que léegi ay doom day lañ. waaw comme hmm. genre yooyu laa wax rek. comme genre yooyu. revanche parce que xam naa ni ñoom ñaar duñ bëre parce que sa wax na lu leer. waaw mais dama laa wax ni la xoolal revanche boobu ni mu a neex. a neex bu ko kóllëre yàqul woon kooku buñ ko bisaatoon mu neex. Hmm, kon mu Mambala nii ak Ragros. Hmm. Mambala Ragros lu ko dàq. dëgg la Mambala lu ko dàq. dëgg la mais pour lan ñoom ñu tamit ñuy xaar te mënuñoo am. avance ba pare di waaw Moussa Jackson waxoon naa Jackson Lacrosse. ah combat yi neex mais tëgg lañ tëgg loolu ñu ma la lekk lekkaat am na solo am nañ nag tey ah koo xamante ni woote na kilifa gi maa ngi lay nuyu di lay ziare. salaamaaleykum wa rahmatullahi lay ziar bu wér lay te seeno mbelo ngi. <laughs> Boucar maa ngi lay ziar mon frère. delloo naa la ko bu wér a wér a wér. di nuyu sa waa plateau bi yëpp. yitteel mhm. ci Père Ibou. Père Père Ibou Diop. maa ngi lay ziar. Leydi. <laughs> <laughs> père Boucar Diop waay Boucar Diop. <laughs> yaa may tooñ de yaa may tooñ de da ngay yàq bi de. bu may maa ngi nuyu père bu baax a baax. maa ngi lay fay maa ngi lay fay seen maa ngi lay fay. di nuyu Lambolog. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm ju sax dakk dëgg ak xéwal yu yaatoo yaatu. dëgg la. yow Boucar. dëgg la. wala di féliciter Lutte TV à travers yow. Mm-hmm. invité ngeen un très grand champion. Mm-hmm. boo xam ne marqué na empreinte ci làmb. Mm-hmm. wax dëgg yàlla woon na ci njàmbaarte woon na ci fulla woon na ci fayda. dëgg la. sag la woon. ci koo xamante ni dañ naan arrondissement Gandiaye. yaakaar naa ne saakam lamb jum tegu woon Hmm. wala tiitar la woon nga gàddu saakam jëm hmm. ci biir géew wala nga gàddu saakam waa lamb ji seen la ngay ñëw pour dugg ci biir te loolu fula ak fayda ak njàmbaarte moom moo koy may mbër kon yaakaar naa ne xam naa ne buñ bëggee wax ci moom hmm. ragal naa danañ téye liñ bi lu bare bari def na jàlloore marqué na am printam macha allah ni mu noonu yaakaar naa ne dana ci am sax yoo xamante ni xëy na dana ko bàyyi. dëgg la waaye daal loo ci mën a dégg. Mhm. c'est un très très grand champion. macha allah ñi ko seqaloon yabunu ko. Mhm. te ñi ko seqaloon jox nañ ko cër. dëgg xanaa di ko ñaanal rek. Mhm. yàlla subhaanahu wa mu bàyyi ko fi. lan moo lan moo la gën a marqué ci carrière am. li ma gën a marqué ci carrière am mooy njàmbaarte gi. ndax njàmbaarte googu noonu daf ñu ko woon fu nekk. tey bu ñu waxee Burel Gandiaye hmm. Babou Ngom moo koy nuyu de passage hmm. di ko ñaanal yàlla wéral ay cëram amiin amiin yaakaar naa ne tey jii bu doonoon koo xamante ni mun naa ko connecté ci ligne bi hmm. danaa ko connecté ci ligne bi ndax ay naataango lañ xamante ni ànd nañ def lu ne dëgg la yaakaar naa ne fu ne ndëndu Babou Ngom jib na fa waaye bu jóob itam yaakaar naa ne moom itam def na di ñaanal Amady Ndiaye. Mm. yal na yàlla yërëm ko te jégal ko. père yi bu xam bu baax. dëgg la. Amady Ndiaye moo doon wax bu jëlee micro bi. Mm-hmm. mu ne attention Ibou Diop <laughs> attention Ibou Diop lor weer gàtt na waaye tubaab bi boole na ko ci armée bi. dëgg la. <laughs> ndax bi ndax ndax ndax bindam maanaam corpulence am. macha allah ku ne xam na ne dafa gàtt. moo tax mm. góor gi Amady Ndiaye yal na ko yàlla yërëm doon wax ne. Mm-hmm. lor weer gàtt na waaye tubaab bi boole na ko ci armée bi attention Ibou Diop. wax dëgg yàlla muy jàmbaar joo xamante ni wax dëgg yàlla kenn kenn mënut a natt kenn mënut a natt maanaam jàmbaarteem. dégg naa am na benn supporter bu ko bëggoon. waaw. waaw bu dëkkoon xaw ma xul la dëkkoon xaw daal. maanaam maanaam maanaam maanaam addina ñoo ko bëggoon. <laughs> ah jéen. comme ma ko mën a waxe ah. jéen muy wax. Ah. xam naa dina dina dinaa la dugal koo xamante ni. correct correcté ko ak waa dëkk ba directement. Ah. <laughs> kooku waaye daal loo ci mën a dégg. Ah. xam naa ne fekkee naa fu mu jëlee final gànjaay. Hmm. jën moomu pourtant du woon mbër. waaye xam naa ne mbégteem bi mu ñëwee bi ko ne sa jël da koo yenu teg ci ay mbagam. ndeysaan. ci mbër mu ci ci mbëru poids lourd bu bu bëree. Ah. ba jël drapeau. ndeysaan. poids lourd ku ne xam na ne du du bu oyof. dëgg la. waaye keroog jéen da koo ne cas teg ko ci ay mbaggam. yéen ko daw moom. yéen ko daw kon tey jii comme ni ma ko waxee rek. te jamono yi ñuy wax arrondissement Gandiaye ba tey ñu naan commune Thiomi commune du Gandiaye. Ah. yaakaar naa ne zone boobu noonu ba ca Mbéla Kajaw ak Jaxaaw ak parce que boor boobu yëpp bëri lañ doon tëgg. dëgg la. waaw boor boobu yëpp biral lañ doon tëgg. dëgg la kon yaakaar naa ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, def na daal comme ni ma la ko mën a waxee na empreinte am. macha allah am na solo. waaw ñaanal ko yàlla parce que li ñu marqué ci moom bari na. bari na lool bari na lool bari na lool. bari na maanaam maanaam maanaam tey zone boobu noonu bari na ba ci ñoom Adama Diouf Mame Mendy. Uh-huh. décoré na ko fi daaw. moom itam ma ko nuyu di ko remercier le passage. dëgg la ndax defal na ko lu am solo. dëgg la te moom dafa wax akulaay taalam. ñoom bu ñu bëggee bëre c' est grâce à ce champion mooy Ibou Diop moom. dëgg am na solo ñu lay jaajëfal bu yëpp tey bari na ñoo xamante ne dañuy takk ngemb. Mm-hmm. Ibou tax ñu bëgg ñii di ko seetaan. di nuyu rek di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jàppale ci carrière am yëpp. xam naa ne rusuñu. li mu war a def yëpp def na ko. def na ko macha allah. gone yi nga xamante ni tey ñoo tabbi ci loxoom. Hmm. gëm naa ne ñoom ñoo koy desel waaye moom du leen desel dara. du leen desel dara am solo. waaw du leen desel dara. di ñaan wax dëgg yàlla rek yàlla may leen succès. ndax hmm. ñoom itam comme dañ leen a yëkkati teg leen ci suñuy loxo peer. day laaj wax dëgg yàlla ñu yéene leen jàmm ju bare bare bare bëri ñaanal leen wax dëgg yàlla ay ndam yu bare bëri itam ci làmb ji jërëjëf seen jërëjëf xam naa ne bu ñu ko dégloo dina leen defar dina leen defar lu ne incha allah jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax Boucar jërëjëf vraiment di leen remercier ji waat rek jërëjëf di leen ñaanal wax dëgg yàlla affaire bi gën a jëm kanam daal mhm. jaajëf am na solo lool lool ah kookoy layti seen ñu koy bëgge di ko jaar borom ombelo ngic li mu wax noonu loo si mën a wax as tuut comme am nga bi may tudd tudd naa ko. Hmm. danaa la ñoom layti. waaw booba ñu ngi jàng. dëgg la. waaye moom. Hmm. yàlla de koo def mu mu waroon na rek mbër. Hmm. waaye nekkul mbër nag waaye si amateur amateur la. day dund làmb. la. day dund làmb. amul kii amul kële ñëpp la bëgg. kuy bëre rek kuy bëre rek lay ci bëgg na la. dëgg la si tam yi ngay gis nii. këram laa ko yóbbu woon. Mhm. kër lay ci laa ko yóbbu woon. ci ñoom rek rek. Mhm. ndax Boucar fils de Ibou. Boucar. Mhm. Leyti. ak Boucar seen yaay yi ñoo bokk ay baay. ndeysaan. ñoom ñoo génn ci benn kër ñu sëyi. mu jël Boucar teg ko comme doomam. dëgg la. man. damaa topp ci seen kaw rek waaye lépp moom la. ndeysaan. nit ku baax la. waaw ku baax la. Mhm. ku bugg a làmb la. Mhm. te làmb amalu ko njëriñ. Mhm. moo amal làmb njëriñ. ndax moom mooy jël alalam di dugal ci làmb. loo ko laaj ci làmb tey tey tey bu ma toll woon fii ne dama bugg nga jox ma cinquante minutes. tey tey ci ko bugg a def ci làmb. tey nga gis mu jox ma ko. ndeysaan moo tax nag làmb dañ dañ ko war a fay. akam comme kii nga xam ne moom itam làmb da ko war a fay akam ndax sonn na ci làmb ji. bëgg na làmb ji. Mhm. mu ngi gunge làmb ji. Mhm. mu ngi ñuy gunge ñun ñi nga xam ne ñun ñooy làmb ji. dëgg la tey mu ngi wax ci ñun loo xam ne sax nekkul ci ñun. Mhm. ndax nit ki da ngay wax dara loo xam ne sax nekkul ci ñun waaye yàgg da ñoo bëgg da bëgg nit ñi jàppale ñu. yal na la yàlla def mag. amiin ak nga wër. ak wër ngay am kattan. di dem di ñëw. ndax boo amul kattan doo mën a ñëw fii. yal na ngay am kattan. dëgg la lu la war loo war a am mu jig la yal na am lu la war te jig nag yal na bu mu am. dëgg la amiin amiin li mu wax làmb loo siy dolli. waaw ñaan yi moom am na solo moom. paa bi daa baax rek. billaahi borom baax la. Hmm. parce que gis nga ko mi ngi ñaanal la sax bay ñaanalaale làmbaloo. loolu la mën a am. Hmm. parce que loolu day sedd xol quoi parce que tey jii mënoon naa fee wax tey ji mu xep wax bi. Hmm. jóge fi def benn effort. dëgg la mais gis nga naka nga wax rek mu mandi contact làmb. parce que waxtaan noonu kese la. da loo xamante ni day jàlle. boo jàllee rek gars dañ koy dañ la koy nangul mais tey jii boo si bëggee tamit lu neex nit it mënoo waxtaanal gars yi mm-hmm. parce que gars yi lu neex nit mm-hmm. da ngay xool luy xam-xam nga waxe ko luy xel nga waxe ko mm-hmm. luy luy yàq nga téye ko parce que tey jii mujj si poso mu réer yow rek lañ koy ji mais ña laaloon kenn du leen wax dara dëgg la waaw maa maanaam toog si mbir mi ñëpp di la seetaan tamit nga wax lu juumu kooku kenn bëggu ko waaw te wax ñëpp nangu yombul si Sénégal. Mhm. bëree fi ba mu jeexit yombul si Sénégal. dëgg la football feet yombul Sénégal. Mhm. ah. Mhm. kon kon kon kon Sénégal moo baaxoo noonu. mais nag Sénégal réew mi la booy naa ma réew mi yàllaa ko moom. ma ne ko lu mu neex waaye def fi. waaye bu ñu demee bu kenn miim. bu kenn miim am na solo Père Ibou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kontaan si yow xam naa ne dérangement bi par rapport ak liggéey bi activité yi bëri na lool lool lool ñu ngi si am contentement di la fan. yàlla gën a dëgëral taxawaay bi te tey bépp coono boo coono ci xale yi rek tey yàlla na la ko yàlla fay mu nekk yiw ñu bàyyi la rek tey li ngay tàggatoo si Lutte TV en na cas kontaan nañ lool lool lool lool ci yow ndax xam naa ne yow moom sa carrière mënuñu ko wax benn fan <laughs> waaw waaw maa ngi lay gërëm mhm. maa ngi lay ñaanal wër ak wër la amiin rajo bi itam maa ngi leen di ñaanal ñu yokk ci jàmm mhm, ndax bu ñu mhm. Lutte TV ñu ndax fii ñu ne nii mosuma foog ne dinaa ñëw fii dëgg la waaye nag yow yaa tax yow yaa sababu booba ñëw fii dëgg la kon nag maa ngi lay sant. Hmm. di sant ki nga xam ne mooy kilifa waa kilifa borom kër gi. muy Ibrahima Faye muy sama turandoo. Hmm. maa ngi koy sant bu baax a baax. di ko hmm. ñaanal wér ak wér comme li nga wax rek. nit ñaa ngi yor ay milliards dugal ko baax.